mbokki Senegal ak li ko wër lii nag yéenay borom boromi reen ak sunguf liggéeyam si alam gi la ko wéeg garab si nga mun a am xànc xob reen fas sëriñ dembaka lañ koy woowee borom jolof ñu koy dàkkantalee borom xas borom reen ak sunguf waaw li fi ma mbàyyi lu sa soxla jamp-jamp loo yàkkamti yàkkamti il faut mu seetal la bala muy def dara moo xam à distance la moo xam nga ñëw ba si moom moom nag wàllum paj nee na du ko laal du ko jege pour ki nga xam ne dafa am jafe-jafe wërsëkam tëj aju mënta am liggéey wala yag yàgg si palaasu liggéeyakaayam jàng na ay demandam partout si entreprise yi waaye kenn du ko jël kenn du ko ngir nga bëgg voyager dem à l'extérieur nga nekk sa bitim réew bëgg am ay kayit si makkan bi ngay liggéeyee yaag sa kilifa du ngeen déggoo soxna si sëy te moog borom këram juboowuñ ba si njaboot joo xam ne ñoom ñëpp juboowuñ ngay samp kër wala di tabax ngay waajal concours examen wala sax ngay xëccoo ak poste nga am jafe-jafe ak yoon nga nekk chauffeur léeg-léeg ñu jox la oto léeg-léeg ñu nangu nangu ko nga soxla bayre xaalis wala sax bayre foo nekk ñu lay tudd boo nekkee si xat-xat yii yëpp ma lim nag Serigne Demba Ka Jolof def si yëngatu reen sunguf xànc xob càngat lii daal lañ ko xamee te sax ndono la si moom mun nga koo ëpp njàng waaye bu ngeen demee si garab yi da nga féetoo boor mbokk yi mun ngeen a jokkoo ak moom 78 196 79 00 léeg-léeg dina nekk Dakar parcelle unité 13 Mbour wala Saly ñi nga xam ne nag dañuy fexe pour tukki mënuñoo fexe ba dem ñetti garabam nga dox sa dox ñi bëgg a sëy te amuñu ku leen ñaan si wala boo amee soxna doo yàgg ak moom am na garabam boo xam ne boo dee chauffeur boo ko xesee ba laal doo ñàkkati oto buñ lay jox wërsëg bu ubbeeku képp koo xam ne nag da bëgg a liggéey ak tubaab wala ku xees wala sax nga yëngatu si wàllu jàmm bëgg xos pour sa jur gën a yokk ak loo xam ne boo ko defee si gétt ga képp ku sàcc jur gi dana weeru jigéen ñi nga xam ne nag dañoo won na lor dañu bugg mucc si opération am na loo xam ne bu ñu la ko joxee nga takk ko doo mos a moom nag ay garabam jolof la koy jëlee Guinée Bissau ba Gambie si wàllu feebar yi nag du koy faj waaye bu dee bopp métti nga yore walla nga am jafe-jafe si kaw lal boo jokkoo ak moom sa aajo faju Serigne Demba Ka defal yàlla la jokkoo leen ak moom gaaw.